kon euh, ni ñu leen ko waxee woon yéen a ngi ñuy suivre toujours ci seen euh, plateforme yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun tey liggéey bi muy euh, yéen a ngi suivre ci Prod4 bi nga xam ne mooy produire jotaay bi ak waa Touba Vision Touba Monde bi Mouride TV Ucab TV Xéewal TV Darmanko TV Xasida Online a 2 TV. ñoom ñëpp ñi ngi jàllale jataayu tey bi muy bisu Cheikhul Khadim bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci Touba Brescia waaye di gërëm aussi suñu partenaire officiel la banque islamique ñëw ànd ak ñun vingt quatrième édition bu ren bi ñu fas yéene nag dalal fi bépp kilifa boo xam ni wax dëgg yàlla tey teew nga ci jataay bi ñu am ak yow jataay jël say impression ci bis bi nga xam ne moom la ñu nekk di amal ñu dalal tey kilifa gu mag muy la président Déthié Fall mu teewe tey bis bi ànd kook ñun ci suba ba léegi kon xam naa dañuy bàyyi rek ak suñu naataango Serigne Aliou Ba bu ko defee ñu dugg ak moom ci waxtaan wi balaa loolu ñu bàyyi ko mu nuyoo président Déthié ñu ngi lay euh, dalal. ci Touba Brescia tey ganuk association Cheikh Ahmadou Bamba ga ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy amal bisub Cheikhul Khadim bi muy la 8 juin Serigne Mourtala Mbacke ñëwoon fii ci Italie ñaan ko ci commune bu ñuy wax Pontevico maire bi nga xam ne moom moo ko décrété woon moo fi jël sànq parole ñu naan ko Fausto Gatta d'ailleurs ñëw Sénégal ba président de la république décoré ko ci décor yooyu nga xam ni mooy maanaam nit ñi nga xam dañ leen di ràññee ci loo xam ne defal nañ ko askanawu Sénégal donc bis boobu tey ñu toll ci vingt quatrième édition tey nga ñëw ànd kook ñun xam naa dañ lay bàyyi rek nga nuyoote ak askan wi balaa sëñ Aliou di dugg yow ci laaj yi. jërëjëf ñu nuyu bépp sénégalais ak sénégalaises bu ñuy teewlu. nekk ci biir réew mi wala nekk ci bitim réew di nuyu xalifa général di murit Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg wér di am mbégte lool ñëw fii tey jii nii bokk ak euh, sénégalais ak sénégalais yi nekk fii Italie bokk ak mbokk murit yi bis bi nga xam ni du lépp na ñëw fii yàgg naa fi ñëw tey dafa fekkoon ma nekk mission biir Europe mu fekk ma fi ma ni lu nu mel bu la ci yàlla boole il faut nga jaar fii barkeelu ci loolu mooy tànk yi di kon di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom teew ci seen plateforme yi di leen nuyu yéen ñi nekk aussi ci plateau yi. jërëjëf euh, président Déthié kon Aliou xam naa yow it rek dañ lay euh, bàyyi nga dugg ak euh, président si waxtaan jërëjëf euh, président ñoo lay dalal fii ci Brescia di am mbégte bu mag nag euh, bokk ak yow journée bi euh, dëgg la du tey nga fi masa a ñëw yàgg fi ñëw un homme vraiment pacifique dañ naan dëcce dafa yaru bon c'est le c'est le nom que tout donc jamono yi vraiment sëñ Mamor nekk un ambassadeur de la diaspora un ambassadeur de l'islam ku tedd ak sëñ Moufla waxoon Euh, donc ba muy dégale ay kër tax ay kër l'islam loonu wax mais euh, loolu c'était pour unifier pour boole ñëpp ñu gis ne sa message là depuis presque un mois lay tournée bi di durer benn message là mooy salaam mooy paix euh, donc président teew fi tey nekk nit yi jàmm nekk nit boo xam ne bëggul lu dul askan bi avancé président nan nga gisee l'évolution bu nga xam ne diaspora bi en général am nañu la communauté musulmane bu nga xam ne wala murid bi bu nga xam ne moment yi mooy ay moment yi nga xam ne euh, c'est délicat na ci côté yëpp nag muy crise bi crise en mode général ban nan nga jàngatee cette évolution là depuis vingt quatre ans yu nga xam ne c'est pas la première fois nga ñëw fii ci Italie di fête ak ñun euh, cette journée là jërëjëf xam naa ni jataay bi du gën yàgg ndaxte dama bëgg teewlu lool li sëñ bi di wax maa ñor lool ndaxte moom yàlla da ko baaxee baaxee bi nga xam ni buy wax ñëpp dañuy bëgg sàkku bëgg jariñu ci li nga xam ni moom lay moom lay rotal kon li nga wax nag dafa am solo ñu guléeg ñu ñëw fii yàgg nañ fii ñëw mais bu ñu ñëwee beneen bu yàlla def ñu dellu si dañuy gis en terme d'organisation en terme de mobilisation ci pas-pas ci taxawaay ñu ngeen jëlee mbiri ak li ngeen ci nekkee kon di leen félicité ndaxte yombul yombul yàlla teg ci yow benn charge ay nit placé ci yow confiance nga mën def tout temps li nga xam ni mooy tax nit ñi la wóolu muy jëm kanam guddi ak bëccëg ñëwoon naa fi dellu fi tey ci mbooloo ci organisation daanaka da gis évolution je me rappelle bi ma ñëwee bi fi mujj bi sax nii la podium bi nekkee woon daanaka bool bële la nekkee woon foofu la toogee woon donc pour wan leen rek ni xaw naa fi miin tuuti kon di ci félicité wax nga ko communauté sénégalaise bi nekk diaspora dañu doon une communauté très importante ci doxalinu Sénégal ci koom-koomu Sénégal mais aussi ci image yu Sénégal ci àdduna bi ndaxte ñëpp xamee nañ leen liggéey ñëpp xamee nañ leen nitub jàmm ñëpp xam nañ leen nitub yaru nitub kóllëre te it boo demee ba communauté de la diaspora di dugal lu mat ay mille cinq cent mille six milliards ci biir réew loolu dootul lu ndaw dafa doon li nga xam ne lu mag la te ci seen ñaq la jóge seen doole la jóge ci seen pas-pas la jóge di rot biir réew mi ñi nga xam ne ñoo nekk biir réew mi di ci jariñ kon loolu di taxawaay bu am solo communauté murit yàlla dafa def Sëriñ Tuubaa mu leen baaxal ndaxte nit ñi ñëpp ay taalibe murit lañ man nii sama ñaari waajur yi ñoo ngi fële ñu denc baax ya yàlla def na ci euh, communauté murit laa bokk Sëriñ Tuubaa daf leen baaxel da leen waajal da leen teg loxo moo tax fu ñu nekk dangaa gis seen taxawaay day fés ci organisation ci pas-pas ci liggéey ndaxte li sëñ bi wax rek ci lañu nekk guddi ak bëccëg loolu nekk di wéyal kon di sant communauté mouride bi ci lii nga xam ne tey jii dem nañu ba am ko fii biir Italie te ku xam Europe ni muy doxee ku xam Europe ni mu tëddee nga dem ba am journée bi lu mel ñu dem ba nangul la ko at bu nekk ñu koy mën célébrer ba tey muy vingt quatrième édition loolu day wane rek ñu am na taxawaay boo leen fi am ba mën am confiance autorité yi mën am confiance population yi ba ñu mën leen jagleel bis bi mu teel ndaxte dina jafe lool beneen réew dina jafe lool bu fekkoon beneen taxawaay ngeen am ngeen mën ko am fii ci biir Europe lu ñu mel kon di leen félicité bu baax a baax di félicité aussi toutes les autres communautés muy Tijaan yi Njaasaan ndaxte Sénégal benn la noonu la tudd Sénégal benn la noonu la tudd ku xew la rek ñeneen ñëpp ñëw taxaw ku nekk ci mbir ñeneen ñëpp ñëw taxawul moo tax ci turub euh, euh, Serigne Mountakha Mbacké ñoo ngi jaarale ci moom suñu nuyu di ko yóbbante ci bëpp xalif général bu nekk biir Sénégal di ko yóbbante église bi di ko yóbbante képp kuy kilifa diine ndaxte Sénégal yàlla may na ko boobu diversité boobu pluralité may na ko également boobu communion et loolu mooy liy dëgëral suñu taxawaay mooy li dëgëral suñu jàmm kon daal vraiment li mbégte la ci ñun lu gaafu kon di leen gërëm di leen sant bu baax a baax a baax xam naa sëñ bi ñu noonu wàcce na kàddoom kon suñu kàddu bi ñu ci kaw mais daal bu ngeen gërëm leen gërëm ñu seetaan yëpp wax ne mission internationale la ñu ñëwoon wante dañuy lu mu gàtt gàtt daa mun a yegg si fii teewlu sëriñ bi yegg si fii bokk bis bi ak nga xam ni ñoom fi la bokk di communauté ñoom lii nag comme wax naa ko léegi dugg léeg yàgg naa yàlla ñu yàlla may ñu fiy dellu si ay at yu bare bare di ko fekkee ensemble jërëjëf. macha allah jërëjëf euh, président Déthié message est fort jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant ci dal bi nga dal ak ñun merci beaucoup.